mbokki internetu chrono actu ñu leen ko waxee atum 2021 mu ngi jëm ci jeex ñuy séentu atum 2022 ñu fas yéene ànd ak ci ay xew-xew yu gënoon a fës ci at mi tey jii ñu fas yéene ànd ak yéen ci ay l'accident yu jéggi dayo yi xew ci at mi 2021 newoon na at mu tiis lool ci réew mu Sénégal ndax deret bu tuuru ak i bakken yu bëri yu daal di rot ñu fas yéene ko doore ci fanweeri fan ak benn ci weeru mai mu doonoon date bi nga xamante ne dootuñu ko mus a fàtte ci réew mi rawatina mboole mu këru tasukaayu xibaar ci bés boobee la ab l'accident bu métti daa di am ci xàll diggante Diénou Dia ak Kédougou ab camion daa di mbëkkante ak woto bi nga xamante ne moo yeboon ay taskatu xibaaru site bi la ñu tuddee leeral point net ñetti ci ay liggéeykat daal di fay jaarale ñàkk seen bakkan ci saasa di Abu Mamadou si taskatu xibaar Yero Mamadou Diallo di caméraman ak seen chauffeur Ousmane Ndiaye mu doonoon tiis bu métti bu daloon ci kaw réew mi l'accident bu ni mel nag moo ngi am ci ñetteelu bëccëg bi nga xamante ne kii di président Macky Sall mu nga doon amal tournée économique am ci bëtu ganaaru réew mi mu doonoon itam lu tiis lool ci njiitu réew mi ba tax ci bi muy inauguré hôpital Amath Dansokho bu Kédougou mu àddu ci mbir bu ni ngir ñaanal yile way taskatu xibaar. Je voudrais vous inviter tout à l'heure à observer avec moi une minute de prière à la mémoire de nos trois reporters arrachés à notre affection ce jour sur le trajet de Kédougou. Il s'agit de Abou Mamadou journaliste, Yoro Mamadou Diallo, caméraman, et Ousmane Ndiaye, chauffeur. Puisse Dieu les accueillir en son paradis. ñetti fan ci weerum août ci atum 2021 beneen accident bu doy waar lool daa di xew ci bëtu ganaaru réew mi ci fu jege dëkk bu ñuy wax njuum fukk ak benn ci ay doomi aadama daa di ci ñàkk seeni bakkan juróomi ñeenti ñi ci saasa lañu faatoo ginnaaw bu ab minicar ak benn kaar njaganjaay mëkkante ñu tegaat ci ay fan yu néew beneen accident bu doy waar daa di am ci Kaolack fukki fan ak juróom la woon di maanaam le 15 août 2021 ab camion malien moo daal di yéeg ci kaw benn taxi ba mu daal di mokk juróomi doomi aadama la ñu waxoon ni ñoo ne woon ci biir boobu boobule taxi genn soxna dong jamono jooje moo ci muccoon jële ci woon itam ay gaañu gaañu yu tar ñeenti ñi ñëpp daal di ñàkk seen bakkan ci saasa. mbëkk benn jakarta ñu ne déet waay nga ñëw yéeg ci kaw taxi boo xamante ne dajewu leen da ngaa topp ci ginnaawam yéeg ci kaw taxi bi ba pare taximan la bi may ñëw dama dajek oto bi juste kon kooku noonu amaana bu rëccoon ci kooku suñ kaw lay dal ñun malien yi ñu may jàmm da ngay yéeg ci oto malien sax muy naan canette sangara lay naan oto bi marché la yebee mu ngi yeb cinq personnes kenn moo ciy dundagum laa wax actuellement muy benn maire ñu def comme Dakar bu sept heures jotee camion yëpp taxaw mais ñii buñ duggee ci biir dëkk mel ni ñu yor jakarta ñu ngi ñuy bëgg a jeexal Macky nañu dimbale xam ne njabootam lañ nañu dimbale ngir yàlla ñu ngi bëgg a jeex lii dee bu mel nii ba ma juddoo ba léegi maa ngi koy doog a gis lii dafa ñaaw man dama jooy lu ni mel tax ba askan wi dëkkee foofu la ci Kaolack daal di mer lool ba futtu génn daal di yàkkate boobule camion waaye yemuñ ci ñu daal di baare yoon wa ne benn camion mi bàyyi ko ci Mali du fajaar jaar. booy ñu ngi doxee ci biir dëkk bi di ñëw di toppatoo Maliens yi fi ñu taxaw kii dafa taxawoon mais gis nga ko nee nañ ko mu tourné mi ngi nii tourné waat ak chargement nag yi gis nga benn bii di ñëw oto Malien la mi ngi nii départ boromi Jakarta leen fekk ne leen tourné leen seen oto yi boo yaa ngi ñëw. waa Mali itam daal di mer ba futtu ñoom itam daal di feyu yàq yenn ci ay camion doomu Sénégal yu ne ci seen biir réewa loolee tax ba jëwriñ bu ñu dënk wàllum dem ak dikk gi fii ci senegal daal di ci addu ngir sàkku ab dal ci diggante ñaari réew yi fukki fan juróom ci weerum octobre geneen tiis daal di amaat ci réew mi ginnaaw ab l'accident ci corniche bu daara Jolof tiktokeur bu siiw bile di mbay sapar sapar moo daal di defub l'accident ndax woto bi mu doon dawal moo daal di déraper dal ci kaw ñaari xale yu jigéen yu am fukki at ak ñeent ñoom ñetti doomi aadama yépp daal di faatu ci saasa yeneen i ñetti doomi aadama yu ñàkk seeni bakkan moo di bilangul accident mi am benn fan ci weerum novembre di accident bu tiis lool bi dal cortège Ousmane Sonko njiital Pastef ci wetu Nioro fu soriwu dara kër Ayib ci l'accident boobe ci la photographe Jotna TV daal di ñàkk bakkanam di Ibrahima Fall Amandaw ak Moussa Camara seen woto mi ñu duggoon lañ wax ni moo daal di déraper laata muy ëlbatiku ginnaaw bu ñu doon bàyyeekoo ci Ziguinchor ci ab meeting bu fa Ousmane Sonko doon amal mu newoon itam ab tiis mi dal ci kaw taskatu xibaar yi ndax Ibrahima Fall moomee daanaka bu muy dem di wuy ji boromam mu ngi bàyyi ci ginnaawam ab soxna. buñ ma wowoon ne ma moom mu dee wala man ma dee dama naan man naa dee parce que macha allah lu mu bon bon man am naa jabar am naa ay doom moom xale la mi ngi marié parce que mi ngi takk jabar vendredi le 23 vendredi bi dellusiwaat samedi dimanche lundi mu gaañu kon xamoo dara ci àdduna te 30 ans rek la am 30 ans atum 2021 atum tiis ci wàllum l'accident newoon itam at bi nga xamante ne deret bu bëri moo ci daal di tuuru lii ngeen dëgg nag daanaka. moo ne woon li ci gën a fës waaye l'accident yi bari woon nañu bay jéggi dayoo xanaa rek di ñaan at mi ñuy dégmal di atum 2022 doon atum jàmm ak salaam at bi nga xamante ne duñ ci dund ci wàllum l'accident li ñuy jot a dund ci tiis ci atum 2021 mbokki internet chrono actu lii lañ leen indiloon niki tey jilee dig daje ci geneen jotaay jàmm ak jàmm